yan, apa? Ano ko dyan ko nga? Please. Wow. After ko na korba ko dyan ko may lakas na. Ano ka dyan kiram di jari? Ya, Dëkk bi ak fi jama mamer. Lord, may may nu ko mari. Ñi nga xam ne wax ak seetlu lañ man. Waaw. Ni man nga wax ya, rek. Yéru ko kati dulu. Yow lay def sama nekk. Huh? Lay def sama nekk. Eh, ci biti. Dara. كل سمان واحدة yow man nga bëgg a man nga bëgg a humilier man nga bëgg dama gis naa nak fi ma de fi ma tegoon fi ma teg gis naa cheikh ramadan lu baar weer weer koor weer koor ko xam sant. na nga def. yaa ngi ci jàmm. na yaay koor. boo li nga ma def fii ba sama naw la jeeg di ma waar indil ma yàlla ak yonent bi ay malaakaam tegal ma nga ñëw di ngalañ ngalañ di dugg sama néeg ma naan nga lii laa jël ci Gawal. gis nga li ngay wax ni sax yang koy wax way mënoo ko sax. mënuma ko dama defar dal kii. Hmm. Cobra Cobra Cobra Cobra defar daal. adina hmm. du ni di lo du lo du lo bëgg rek hmm. dem ci ba neex. du lu ma bëgg yow lu ne bëgg naa ko ci adina nga daw ak marwa indi ma tey ko koor may doon femme mari ma doon nu fa mari sama nawle yëpp a ngi may xaar ma war a joxe sama sukur ko nga du ci dal yow maa la baax ka nga sama nekk no ma xul ma dee. waaw man boo ma bàyyi it man bàyyiwuma la ndax mënu ma la baye man aw ma lu la sut aw ma lu la top wat na ko ci yow ci yàlla ma ci koor la nek duma waxal yoo xam nga ni yow bo ma boo nee ma bàyyi bàyyi man dang may sonal ndax man fi dal tek dafa fekk ni li ngay laaj ci suukaru koor dafa bari 500000 dama ko amul mun ma génne kut kut jox la ko faawu may ma tuuti sama nit jox ma ma mën laa jox ndax man man sax man am na ñoo xam ne woowuguma leen pour ñu jox ma ay sukkaru koor ku ci mel pap dum bu ko biram su lay sama xarit la woowuguma ko ñun ñëpp woowuguma leen mais il faut ma may ma mbisaan mbisaan mbisaan mbisaan mbisaan sax woowuguma ko yàlla dara dara mbay doom ko te ñun ñëpp dañu dañ may indi suko ko xana bo leen wooyee kon 1 million nga may jox loolu yow sa xol na sekk ma la légui na xam nga may def ñu ma laa te bëgg laa kër gi am jamm ndax yow bo amé jamm rek man la jamm jàmm seen <laughs> yaay mi defoo ah ah yow fa dé si man la ay eh? ndaysan ci ah ndaysan ci ñu naan na bu dé bo man dé fi

moytu setané di dox suñu diggante fu tol toll fi ma rek sama colonne vertébrale xol bi ngi man xam naa ne li ngay def lu ko. xam nga dama la bëgg mo tax. no man xam nga lu tax man mënuma la bay xam nga darte ñaan xam nga ko. da waaw danaan épée benn micro bi ñu ko di épée yow darte ñaan nga épée rek ngay def mo tax mënuma la bay ma ngi def ci conférence Ousmane Seck. ma ngi ñëw. ba bi li nga xam fa neex mooy yang ma jox mooy yëg ma joxoon yow xam nga ni man luma ma xeeñ yow eh, yow ni nga woré ren neex na dama ak jàmm dëkk ak ni nga woré ren neex na ma la bëgg billahi ma la raw sama xol bi nga ne sama R4 bi sax bu ñu sa photo ci man fepp nga ne ci man ku mënul do lu yaq yow ah. Maria sin may sa biige may sa biige ma waaw ne maa ko waroon jiitu maa kii bu yo dama bëggona dem ci conférence Ousmane Seck waaw xam naa incha allah bu fekkee mariage mooy def fee non mu bii laa jëlee rek xam nga kii lu ma ko a muñal moom mun ma koo muñal moom su doonoon moom nga def ko sama néeg fàtte fa sa yére ba tey kër gaa ngi jol la à tout moment day joxe cinq cent mille cinquante mille nii te maa ngi stressé woon tiit sama noon yi ay noonu sonal nit ci boo ko defee sa xel génn ma toog ko sax bégal ko kan woon sama nawle bi nit boo naa moom wóolu dama amee ah wax ji ko di ko raay nañ ko wax ci wax ci dëgg bi mu jaar kii xam nga li ko sonal ci këram ji lan la jigéen boo koy da ngay takk jigéen bu lay séer waaw lan la lan la lan daa sëy kobraam ji xaw ma ci bi la mu dem kat Jibi Samb man du ma jéeg bu fase. loolu dara leeru ma ci. yow Jibi Samb ku yabaate nga. yow yaa ma gën a yabaate taxaw ma xubbe woon ma ma woon guro ba may faselu. yow Jibi ku yabaate nga yow ku yabaate nga. damaa tey ma wax damaa assumer responsabilité bi. man du ma jéeg yow la ñu war a fase yow taxaw bay fase. kii da nga war a bay fase ba ma takk doo ma. man damaa li ma jëm ci leen waaye man dama ko ñuy ci leen waaye ci leen ci leen bëgg naa nga xam ne da ko ma may fasé appel teel eh ciol teel dama lay laaj ndax man dama ndu bu ñuy fasé déedéet yow duma la fasé wu ma ah dama ko dé bu ñuy fasé dama dama ngay mel na alpha bu non dina jalon waaye loolu fee lépp yow. Ya, ah lépp yow ya, rek. jibi sam jibi nekkal góor jibi nekkal góor yéen ñii ñu fi góor ji moo tax may wax li may wax. ah waaye góor kenn du ko. tànta sante bi ak ak xale yi jigéen pour la kii sa tànta la. mu doon ñëw sama tànta mu ko waxati. ah bon nekkul sama tànta man benn tànta ni wax li ma Iran. naa dem na ngeen tëj man naa dem ngeen tëj kër ko dem rek ngeen

yaayam baaxul ci yaay. yaayam baaxul dafa am solo yaayam baaxul man yaayam dama ko déggoon bañ koy indi yaayam dama koo déggoon ak ay bàjjanam. fee Sambala la yaayam nii la la yaayam ñoom moom la yaayam nii la la yaayam déggoon na ko ay bàjjanam dégg la mer naam fenn yaayam ko naam